ngir nag ñu gën a mën a amal li nga xam ne mooy ay opération nee na tamit lépp loo xam ne jëm na ci ay moyens de sécurité njiitu réew mi nee na dana ko daal di defal ñi nga xam ne ñooy takk der yi ba mu mat sëkk njiitu réew mi di président Macky Sall ci journal bi daat nay wax ne jamono ji nga xamante ni nag maanaam njëg yi dafa yokk ba maara détal yi ak crise mondiale bi nga xam ne moo am ci àdduna bi Macky Sall nee na li nga xam ne mooy pexe ji mooy ñu jéem a am indépendance alimentaire am maanaam li nga xam ne moom la ñu lekk ñu bañ koo jéggaani waaye nag bàyyeeku fii ci réew mi lekkee ko ci réew mi moom njiitu réew mi nee na def na ay jéego yu am solo ci lu jëm ci wàññu dund gi ndax nee na lu jëm ci wàllum ceeb bi wàññi na ko lu jëm ci wàllum diwlin gi ak suukar si wàññi na ko yéen kaay gi de Les Échos nee na ci 4 avril bi Macky Sall génn na li nga xam ne mooy arme yi ba pare nag di avertir ñi nga xam ne ñooy sàmba boy yi gi di Sud Quotidien nee na lu jëm nag ci wàllum souveraineté alimentaire Macky Sall woote na ab appel mobilisation boo xamante daal mobilisation générale lay doon ñëpp kenn ku nekk dugal ci loxo ma ngir nag li nga xam ne moom la ñu dundee mu ñoree ci réew mi maanaam ñu bañ koo jéggaani bitim réew moom sunu bopp ci lu jëm ci wàllum dund gi yéen kaay gi de La Témoin nee na njiitu réew di président Macky Sall ci 4 avril bi daan nay déclaré guerre ñi nga xam ne ñooy dagg bant yi ci anam boo xam ne anam bu jaarul yoon la yéen a kaay gi di réew mi ko di ci nee na ci fête de l'indépendance bi daan nañuy gracier lu toll si juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñooy ay cantaakuna yi ñu tuumaloona ci lu jëm ci ñaari taalibey Cheikh Béthio yu ñu rayoon ca Madinatu yooyu nga xam ne tëju nañ leen sa kaso ba daan nañ leen di gracier yéen a kaay nga xam ne ñoom la ñu rey seeni mbokk ñooñu interpellé njiitu réew mi di président Macky Sall yéenekaay gi di la témoin nee na nag mi moom baa jaaxalu la na ñeenti fan ci weeru avril la ñu ne mooy sunu fête de l'indépendance waaye nag Mohamed Bachir Diop moom nee na indépendance Sénégal du 4 avril la waaye nag ñaar fukki fan la ci weeru août atum 1960 yéenekaay gi nee na lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer benn fukk ak juróom-ñaar ci ay militaire ak paramilitaire niki démb daat nañuy défilé yéenekaay gi di la Quotidien nee na njiitu réew mi di Macky Sall kaful ci lu jëm ci wàllum sécurité askan wi ak ñi nga xam ne ñooy dagg bant yi ci anam bu jaarul yoon ñooñee dànkaafu nañu leen yéen kaay gi réew mi quotidien nee na Ousmane Sonko ay mi nga xam ne mooy maire bu Ziguinchor moom tim ni ki démb maanaam sa Ziguinchor daan nay rafetlu bu baax a baax engagement bi nga xam ne force de sécurité et de défense yi am nañu ko nee nag lu jëm ci wàllum jàmmi Casamance loole nag ñëpp la concerné moo xam militaire yi moo xam civil yi ndax kenn munte def lenn te amoo jàmm yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ca diwaanu Linguère ñoom nag nee nañu bi na li nga xam ne mooy dund gi ci 4 avril bi wàllum diwlin kay ko suukar si ak ceeb bi amul lenn loo xam ne lu si wàññeeku ndax li nga xam ne mooy kilo suukar bi jamono ji ca diwaanu Linguère ma fay jar lu toll ci 750 bu dee nag litre diwlin bi jamono ji ma ngi ci 1300 yéen a kaay gi ne ñi nga xam ne daal en ñoo nekk Linguère ñoom ci koor gi mbir mi neexagut ci ñoom yéen a gi de la Tribune nee na Macky am na indépendance ci lu jëm ci wàllum def bilan ak lu jëm ci wàllum xëy fekk fa Serigne Mbacke Ndiaye nee na opposition bi dañuy nax askan wi waaye nag conseil constitutionnel bu waxee ne Macky Sall war naa mën a def benn nu mandat kenn mënu ci dara yéen kaay gi di enquête réew mi quotidien Vox Populi Libération xëy dañu xibaar naan ñu am na benn enregistrement bu garaaw a garaaw bu doy waar boo xam ne daat nay am enregistrement boobu nag Mamour Diallo la ñu njortu ne moo ciy wax te ki nga xam ne moo ko enregistré journal bi nee na Adji Sarr moo ko enregistré Adji Sarr ak Mamour Diallo ñu say waxtaana yéen kaay gi nee na mbir mu doy waar doy waar la waaye nag bi nga xam ne moom la ñu nekk bay boo ngeen xaar ay